bismillah assalamualaikum wa rahmatullah wa barakaatu mbokk yi ñu ngi leen di nuyu bu baaxa baax di leen ziyaara di la ñaanal jàmm di ko sàkku ci yéen di ñaan yàlla suñu audio bi fekk leen ci jàmm alhamdulillah seen mbokk seen bu géey moo ñëwaat ak yéen ci beneen émission santé ci beneen thème tey ñu fas eh, waxtaan ak yéen ci lu ñuy guadra goitre uh, dafa nek febar bo xamantene ni bu bëri la actuellement bo xamantene setlu seetlu nañ ko na ci jigeen ñi <clears throat> même fekente ne ay góor sa dañ ngi am problème bi mais ci jigéen ñi eh, presque niveau mondial à 80 so cent 100 personnes 80 jigeen jigéen nañuy doon mais non non légui lan mo kay waral et tout goitre nak moy ne dafa am loo xamante ne lu ñuy woowee thyroïde benn benn glande la boo xamante ne suñu ku maanaam suñu loos bi noonu ci biir foofu la nekk euh, moo féete suuf léegi nit ki suñu demee beneen nit ki dafa goitre lan nañuy seetlu ci moom maanaam loos bi dafa mel ni lu néewi xam naa ab après naa dugal photo incha allah day mel ni lu néewi day eh, dem ba jël proportion bo xam manam à la limite loosam bi dootul normal dafa dem ba euh romb na nimu nimu ni di tollu mi ngi non donc fofu médecin bi su ko xoolee rek eh, nan li normalul bolé ko ak yenen signe bien sûr façon goitre nak wax deug dafa beuri façon façon goitre yi am Euh, dafa bëri mais bi ñuy faral di gën a gis fii Sénégal euh, le plus souvent goitre bi du metti goitre bi du metti maanaam du ànd ak benn douleur nit ki day seetlu ne loosam bi euh, si suuf mi ngi commencé di enfler maanaam mel luy neewi jëm ci kanam ah parfois si yenn nit ñi sax seen bët yi da ciy toppale neewi dem ba enfler carrément te signe boobu maanaam su demee ba newi neewi boobu su amee rek xamal ne goitre bi sori na euh, su xasee ba génn foofu rek goitre bi sori na mais noonu si yeneen signes yi parfois nit ki day am problème pour noyyi sax euh, maanaam gêne respiratoire lay parfois euh, pour mu wan na dara wanaasu dara nii day metti ndax fii affaire bi fu mu fu mu installé woo looloo tax par mën na dem ba aussi voix maanaam ni muy waxee suy communiquer sax day am problème pour communication léegi nag lan mooy waral goitre cause yi lan la euh, cause yi nag mën bëri na cause yi wax dëgg bëri na mais bii ñuy faral di gën a gis fii Sénégal première cose bi mooy maanaam manque d'iode iode bi ñuy faral di dégg maanaam sel iodé iode boobu nekk ci xorom bi le plus souvent nit ki moom lay manqué si yaramam léegi nit ki su ko manqué si yaramam euh, ci alimentation bu fekkente ne amul iode moom daal xool na xool amul iode ndax tamit yàlla daf ñu bindee noonu dañuy adapté wu suñu yaram day adapté wu day jéem a xool naka lay compenser loolu te thyroïde bi ma wax sànq mooy glande bi nga xamante ne nii mooy neewi moom dafa am rôle bu am solo moom euh, li ñuy woowee ay hormones moom euh, dafay assurer production ay yenn hormones yi nga xamante ne croissance beeg li tax nit ñi di màgg maanaam nit ki tolluwaayam sax day dépendre si loolu euh, ay li ñuy woowee ay hormones thyroïdiennes moom lay fabriquer léegi nit ki bu fekkente ne yoon bi dafa manqué. cerveau bi day def signal ne carrément ne iode daa manqué iode dafa manqué donc benn hormone nañuy sécréter donc moom dafay dupliqué wu yokk sécrétion bu yokk euh, thyroïde bi tamit maanaam fii di neewi li tax muy neewi moom maanaam moom liggéeyam day gën a yokk moom day day def le tout pour jéem a am li mu manqué noonu day def le tout pour di ko jéem a am donc liggéey boobu day yokk loolu loolay indi hypertrophie maanaam néew yi néew yi boobu mu ngi noonu donc euh, le plus souvent iode mooy manqué wala euh, benn déséquilibre hormone yi ma wax noonu euh, li muy sotteeku ci yaram bi bëreetul mu wàññeeku maanaam déséquilibre carrément la am am na tamit yeneen feebar yoo xamante ne mën na na indi goitre ba tey yoo xam ne ay feebar yoo xam ne parallèle la ba tey si yeneen façon goitre mën na doon tumeur cancer mais non noonu complication complication yi euh, wax ne non seulement loos loos bi nga ne day dem ba problème oro pour moi, maanaam wax bi si normal euh, pour muy lekk problème la problème euh, respiration day dem ba moom day lu maanaam amaigrissement dafay jeex commencé jeex euh, day faral di lox lu bari ah, day day day day maanaam dafay jaaxle te bokk feebar bi bokk na si li koy indi tamit stress benn jour je pense si sama daa si njëkk yi expliqué woon naa ko stress moom mi ngi ci feebar yëpp donc mu ngi noonu na ci liggéey gëna yokk tamit stress la donc nit ki dafay am jaare manam bir bi di daw xol eh, bi ni muy battre day gëna yokku mën dem ba sax soit d'une part mën na jeex wala benen part aussi mën dem ba am yaram pata pata pata manam day jël ben surpoids nit ki dafay sonn tout temps fatigue lay doon wala Euh, constipation ça dépend boobaa ci euh, thyroïde bi ma waxoon sànq naka la wane maanaam hormones su suñu demee ba gëstu xool hormones yi li muy sécrété wu si nañu si le médecin bi di wax naan kii hyperthyroïde yi la am wala hypothyroïde yi donc ci loolu si signe yi muy wane euh, nañuy def benn conclusion mais li ci gën a am solo mooy loos bi loolu moom mooy signe bi gën a palpable boo xamante ne médecin bi loolu lay njëkk a xool nit ki kañ la war a dem consultation euh, en cas de goitre wala dara maanaam képp koo xamante ne nii gis nga changement ci sa yaram gis nga changement ci sa los bi maanaam ci diggante ci kuu bi ci boppam war na ak lu mu tuuti tuuti war na dem ci médecin mu xool ko lan moo ko waral léegi médecin bi nit ki su demee ci médecin bi maanaam li ma waxoon sànq loos bi foofu lay nekk di xool di làmb thyroïde bi fu mu féete ci boppam après naa dugal photo thyroïde bi fu mu féete foofu lay làmb xool ndax mbir dafa néew wala su demee ba génn ñu xool ñu euh, muy demee boole euh, tamit bokk na ci li médecin bi def bindal ko ay analyse ndax am na ay analyse spécifique yoo xamante ne nii mooy wane ndax nit ki dafa amee goitre waaw wala déet mais noonu léegi traitement yi yan traitement la nit ki mën a euh, la mën a jël donc traitement bi dafay dépendre euh, si goitre bi fan la toll ak ban façon goitre la am bu fekkente ne euh, goitre bi soreegul mën nañ ko jox ay garab mu di ko naan comprendre léegi nag bu fekkente ne dafa dem ba sore maanaam loos bi dem na ba néewi carrément dafay dem ba benn instant glande bi ma doon maanaam thyroïde bi glande boo nga xamante ne dafa am solo moom mooy defar hormone yooyu moom nañuy opérer moom nañuy dagg wala ñu dindi ci benn partie mu ngi noonu boole kook nag après di ko jox ay médicament aussi yuy mën a compenser yenn yi euh, mi ngi noonu mais euh, opération moom c'est pas systématique te nit ki su opéré nekkul ne loos bi day delluwaat directement ci saa si comme ni mu meloon déedéet nànk-nànk rek day doon day laaj benn suivi ba pare traitement à long terme la nit ñi koy traité wax xam nañ loolu te euh, traitement à long terme analyse yi cher na wax dëgg fa neex yàlla loolu moom yàlla moo tax may wax euh, analyse moom cher na trop donc feebar bi moom ku ko mën a moytu moytu ko analyse yi cher na trop garab yi cher nañ trop sax dëgg fa neex yàlla mais daal euh, mi ngi noonu donc nit bokk na si lu mu mën a di éviter euh, mooy stress ñu may faral di wax stress moom feebar la boo xamante ne ni surtout dama naan ñëppay stressé ndax euh, képp kuy nit di nga am lenn lu lay metti temps en temps di nga am loo xamante ne su lay xalaat mais warta yàgg nit problème bu mu am war na koo mën a régler ci lu gaaw avancer si leneen sinon rek sa yaram si boppam mooy créer ay signe euh, feebar bi ba tey bokk na si Euh, li muy bañ manqué iode suñu alimentation looloo waral euh, Sénégal def nañ benn politique boo xamante ne nii xorom bu ñuy def bu ñuy toggaaleeg yooyu noonu sel iodé nañ faral di toggee lu ñu wooyee sel iodé loolu bokk na si li lay mën a dimbali vraiment surtout iode bi loolu moom bokk na ci li si njëkk euh, ñi nga xamante ne am nañ ko ba pare moom ñi nga xamante ne am nañ feebar bi wala commence nañu am ay signe nu mu gën a gaawee maanaam bi li lay gën a mën a dimbali dem docteur mais soo yéexee dem rek après une complication moo la fait fekk ñu noonu euh, xam di seen participation ak question réaction wa wa